jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi mbégte la ñuy am samedi bu nekk bu ñu tolloo ci waxtu wi euh, di leen dégtal deux heures de direct yi nga xam ne dina am seen biir émission samedi maak euh, tey nag gis nañ ne actualité bi dafa am doole trop trop euh, ba xam ne lu bari nañ ko waxtaanee kenn umpalewul mbir na fi mu nekk nii dimanche moo di combat bu rëy bi nga xam ne moom la ñëpp doon xaar. Ah, moo di combat diggante nii ak Balla Gaye loolu dañ ko jagleel suñ deuxième partie émission bi mais première partie émission bi euh, dinañ dikk ci loo xam ne tamit euh, coow la judd na fii ci réew mi moo di li xew ci biir parti démocratique sénégale ginaaw ba ñu ñàkkee nguur gi euh, ñu gis ne am na ñoo xam ne jàpp nañ ne dañuy ber seen liste ki ko jiite mu di Pape Diop ànd ceeg Mamadou Seck Ousmane Masseck Ndiaye ay yeneen kàngam yoo xam ne ñu ngi ci biir parti démocratique sénégalais ne ñoom daal. faaw ñu ber seen ndax nii parti démocratique sénégalais di doxee neexu leen jamono yi te buñ sañoon sélection législative yi ñuy dëgmal ñu bokk ci sëq na nag waxtaan woo xam ne mën nañ ko jàppee exclusivité ndax néew na euh, lu muy faral di wax mu di kan Pape Diop ñu gis ko mu toog jox na ñu benn interview bu yaatoo yaatoo yaatu dina leen ko dégtal euh, ci premier parti bi mais nag dañuy tàmbali euh, ci li nga xam ne moom la yéenekaay yi xëyee tey jii ñu gis rek na làmb moo ci gën a fees Euh, yéen kaay bi du l'office di wax les cinq raisons de l'invincibilité de Yékini euh, lu tax Yékini euh, juróomi raison yoo tax ba tey jii kenn mënu koo daan Moussa ñi ngi ne Yékini dafa mel ni ku yor baatin wante nag mara bu pakaaw yu Balla yi nee nañ <laughs> Balla dafa am ay parrains invisible qui vont lutter à sa place maanaam daal ñoo xam ne kenn du leen gis. ñoom ñooy bëreel Balla Gaye sunu lamb dikk tamit ci mbir mi ne euh, dëkkante nañ waxante nañ lu ne Balla Gaye 2 Yékini mais l'heure de vérité Yékini mooy njëkk a ñëw suba 16h45 Balla ñëw 17h euh, les voyants du Sine confirme la victoire de Yékini ñi nga xam ne ñoo di gisaanekat yu nekk ca Sine jàpp nañ ne euh, fi mu nekk nii kii di Yékini mooy daan wante Selbé Ndom moom nee na Balla Gaye 2 moom mooy daan ki nga xam ne moo di nii la tribune ñëw ci benn laaj bi am solo le lion va-t-il détrôner le roi ki nga xam ne moom la ñu wooyee gaynde géejawaay gi ndax euh, day jël li nga xam ne euh, moo di euh, buur bi fu mu toog li ñu koy takkal moo di raayam ndax dina ko jël dikk tamit ci le pays le pays ne la couronne en ndax nag Balla bu daanee ni euh, dina doon euh, roi des arènes loolu la ñu loolu la ñu bëri wante nag day fekk tamit am na ay défaites yoo xam ne dina ko régler euh, ñu ne la couronne en jeu Sud Quotidien dikk tamit ci làmb joojule jeu et enjeu d'une couronne lan moo waral loolu Sud Quotidien dikk na ci tey jii réew mi quotidien ne choc de rock diggante Yékini Balla Gaye de dimanche bi mille éléments mobilisés pour la sécurité Sa Thiès di rakku Balla Gaye 2 dañ ko interdit stade bi Hadj Mansour tamit waxtaan waxtaan waaw yaatu euh, ne Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall et di nettali seen jaar-jaar waaye le populaire ci lamb ji nga xam ne dina am ci diggante Yékini ak Balla Gaye de dafa laajte qui va tomber kan mooy daanu waaye le peuple dikk na ci loo xam ne dañ dikk ñu tamit ci kanam moo di li nga xam ne moo di dund gi euh, lépp euh, kii di Macky Sall digee woon euh, def na ko maanaam daal wàññi na ko bu baax a baax ndax 110 francs de moins sur le sucre 240 francs sur l'huile de fût 40 à 45 francs sur le riz selon la variété dund gi maanaam démb dogal bàyyeekoo na ci nguur gi wàññi ko Leewtoo na le roi perdra-t-il sa couronne ndax ndaxte kii di ni day ñàkk li nga xam ne moo di couronam loolu yëpp dina leer waaye am laaj boo xam ne ni mu ko laajee Selbé Ndom maa ngi ko doon wax léegi yéen a l'observateur fësal gisaaneem ne Yékini va tomber il chutera sur son côté droit maanaam daal ci ndeyjoor bi lay daanoo waaw loolu mu ngi ci kanam Macky Sall baisse les prix du de l'huile et du sucre la première dame Mariam Faye interdit d'accès au palais Aliou Sow du lay Balde ne Balde li mu wax yëpp dara du ci dëgg Walf Sport tamit dikk ci loolu un lion dans la cour du roi euh, suñu ñaareelu pàcc émission euh, daanaka ñoom lañ koy jagleel euh, ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy bëre waaye laata loolu li ma ko waxoon léegi rek ne xam nga am na lu xew ci biir parti démocratique sénégalais ci diggante ñi nga xam ne ñoo fa nekk waaye Pape Diop mi nga xam ne mooy président bu Sénat waxtaan bu am solo lañ siq ak moom ñu def lu dul seetaan waxtaan woowu. dellu siwaat laata ñuy song suñ ñaareelu pàcc ci diggante Balla Gaye ak Yékini jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi tey jii am nañu mbégte euh, di dalal kenn koo xam ne mën nañu wax ne sénégalais yàkkamti woon nañ mu yëkkati kàddoom leeral leen ci li nga xam ne moom lañu gis jamono yi muy waxtaan moo di lan moo di ñi nga xam ne ñoo fas ne jiite list bi nga xam ne moo di bokk gis-gis ki ñuy tabb mu doon kilifa gi jiite liste boobu moo di président Sénat di Pape Diop kàddoom néew na ci ñu ko tàmm di déglu la muy wax waaye tey ji nag dina ñu dalal leeralal ñu ci liste boobu nga xam ne ñu ngi koy dégg moo ay am kàngam yoo xam ne am na ay ndombay tànk nekk ci parti démocratique sénégalais ne naam ñu ngi ci biir parti bi waaye dañoo bëgg a bay seen waar ci beneen anam ngir ëllëg ak si biir ñu mën a xam part bi kan moo ko mën a jiite président maa ngi leen nuyu jox la kàddu gi nga leeral ci mbir mi. waaw jërëjëf Papale euh, maa ngi nuyu ñi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan ñëpp. Euh, sénégalais yi ak ñu dul sénégalais suñu mbokk yi nekk ci réew mi ak ñu nekk bitim réew euh, li nga ma laaj nag mën naa ci tontu bu baax a baax bi nga xamee ni élection présidentielle bi dafa passé euh, dañu commencé waxtaan ci mbiri parti bi parce que parti bi euh, ñoo doon euh, moo doon soutenir président Abdoulaye Wade pour ñu seet nu ñuy mën a def ba rebondir te loolu pour ñu def ko il faut ñu fexe ba dajalewaat parti bi dajale parti bi nag yaakaar naa ni du ñëpp ñoo ko man man am naa gis-gis ni ak yaakaar boo xam ni man bokk naa ci ñi ko man am na ñeneen nag suñu responsable yu bari aussi xalaat ni man mën naa loolu waaye bu loolu passé am naa aussi légitimité boo xam ni ci parti bi euh, bu ma mën a may ma euh, am yaakaar ni loolu nit ñi mën naa ko euh, parcours bi ma am ci parti bi tam yaakaar naa ni war na ma ko mën a may parce que partie bi yàgg naa ci torop ba ñu nekkee ci opposition bi Euh, di xeex di xeex ma nekk ci wetu président ñuy xeex ba jël pouvoir bi euh, bi ñu jëlee pouvoir bi tam ah defal na ma lu nekk loolu moom kenn du ko weddi loolu lu rëy la ci man ak ñi nga xam ni ñooy samay xarit samay mbokk ak samay wëlëre man aussi euh, yaakaar naa ni j'ai tout donné au parti bi ñu nekkee ci opposition bi ñëpp xam nañu taxawaay bi ma ci amoon li ñu nekkee ci gouvernement bi tam yaakaar naa ni mosuma yàqal parti bi mosuma yàqal président loolu kon moo tax ñu jógoon ñun pour dajalewaat parti bi pour mën a euh, fii ak ay at jëlaat réew mi continuer li nga xam ni président moom la def ci Sénégal parce que def na fi lu rëy loo xam ni pour euh, égaler ko du yomb ñun loolu moo doon suñu souci waaye bi ñu amee gis-gis boobu dafa am ñeneen ci biir parti bi loolu mooy démocratie am beneen gis-gis waaye li tax nag lii am waxtaan moo amul parce que eh, bu fekkee ni ñii dañu am gis-gis bi ñii am beneen gis-gis dañu war a toog waxtaan waxtaanuñu ñun ñu ni ak ñi ma àndal eh, ñu ni nañu def suñu liste bopp mais il faut que ma préciser aussi ñi ñu àndal ñan lañu Eh, man ñi ma àndal ñoom Mamadou Seck ñoom Ousmane Masseck Ndiaye Thierno Lo ak ministre yu bari ak i sénateur dañu ni ñun ay militant PDS lañu moom la ñuy nekk bàyyiwuñu pedes tey bàyyiwuñu ko ëllëg am ñeneen ñoo xam ni beneen groupe boo xam ni dañu bàyyi woon parti bi mooy ñoom Ablaye Balde ak euh, Ablaye Balde ak euh, Abdou Fall ak ñeneen ñooñu ñëw fekk si bokk ak ñun gis-gis ni kon nañu ànd ak ñun ci lis am yeneen parti politique yu bari yu ñëw ànd ak ñun am ay organisation société civile yu bari ñëw ànd ak ñun kon loolu mooy sababu taxawal lis bokk gis-gis ñu yaakaar ni comme on est en démocratie eh, bu ñu defee liste PDS ñun ñu def suñu lis mën na nekk loo xam ni ëllëg dafay nekk primaire élection yi entre ñun ak ñoom ku ci jiitu ñeneen ñi topp sa ginnaaw ñu bokk tabaxaat parti bi dem ci élection 2014 yi ak 2017 ñun bu ñu jiitoo nu sommes des démocrates dinañ topp seen ginnaaw waaye ñoo ñoom itam bu ñu leen jiitoo nañu topp suñu ginnaaw waaye euh, dama yaakaar ni mbir mi lu baax la sax euh, ndaxte depuis bi loolu amee dafa am ñu bëri ñoo xam ni bi élection yi passé dañoo bàyyi woon partie bi ñoo xam nag lu tax ñu bàyyi ñun nag bàyyiwuñu ñu bëri dañu ñëwaat bokk ak ñun gis-gis boobu ñëwaat fi mu nekk daal dafa mel ni eh, ñi waroon a bàyyi partie bi yëpp daw eh, téye nañ leen. ñu ngi ñëw ci ñun. ñu amaat yaakaar ni dara dina taxawaat loolu donc ñun lu dama yaakaar ni lu baax la ci partie bi. Mm-hmm. du tere. ñu war a considérer ñun ñëpp ay ay frères lañu ak ay sœurs euh, ànd liggéey xam ni parti bi ñoo ko moom kenn ëppalewu ci kenn ñun daal fas yéene wu ñu bàyyi dañu fas yéene liggéey ci biir parti bi waaye ber suñu lis bu élection yi passé nag ñu seet nan la ñuy àndewaat